Abdoulaye Sow alors euh, retrait Macky Sall euh, yan perspective la la la ah, dama jàpp ni euh, wax nañ ko d'ailleurs au cours du débat ñëwaat nañ ci perspective yooyu yëpp euh, perspective politique perspective diplomatique parce que tey c'est une victoire du Sénégal sànq leen nga message wu Embalo c'est-à-dire que le monde entier est en train de saluer la posture du président Macky Sall est en train de saluer le Sénégal dama ne aujourd'hui ce que la l'acte bu ñu posé tey effacé na ce qui s'est passé le premier et le deux juin. Moussa Faki Mahatma de l'Union africaine il dit je salue la décision sage et salutaire de mon frère le président Macky Sall de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle j'exprime mon admiration au grand homme d'État qu'il est d'avoir privilégié l'intérêt supérieur du Sénégal et de préserver ainsi le modèle démocratique sénégalais qui fait la fierté de l'Afrique. Moi c'est ça, c'est ça, dafay am rek am na yenn parti yu nga xam ne qui seront toujours réticents à féliciter président Macky Sall c'est ça aussi la rancune politique elle ne doit pas exister Assane baa ngi nii ce qui s'est passé entre Karim Wade et et le pouvoir c'était chaud mais le PDS a sorti un communiqué officiel pour féliciter et cette posture républicaine est à saluer parce que comme aussi Thioiba l'a dit Khalifa Sall taxaw na ci kanamu président Macky Sall mu wax li tax mu ñëw ci dialogue bi xam nga sànq euh, Fofana suma goro wax na ni lu tax ñëwuñ ci dialogue bi. TDR loolu foofu na c'est pas ça. Ah, c'est ça vous avez annoncé publiquement que vous répondrez pas en dialogue dialogue et là Ousmane Ousmane Sonko l'a utilisé le même terme donc et et et Mamadou mu ngi may dégg daf ma njëkk wax ni jotuñu convocation daf ma njëkk wax ni man mu ne ma jotuñu convocation je vérifie la convocation est bien arrivée chez eux Khalifa Sall qui fait partie du M24 a devant le président Macky sal

on a terminé rek les travaux. bon dinañ Covid Covid Covid Covid moo ko supprimé xam nga foofa na nañu nañu foofa na nañu nañu gentleman rek ba ñu pare. Ah, euh, donc muy continuation dialogue bi nga xam ne participé woon ci 2019 donc forcément bu ñu wax loolu te président dafa ne woon terme de référence yi état bi du ko proposé moom ci boppam dafa bëgg parti yëpp ñëw toog qu'on définisse ensemble les termes de référence on a fait une journée ñun au dialogue pour nous entendre sur les termes. ma rappelé ni Coy euh, bi ñu demee dialogue politique li taxaw a posé le problème de la candidature du président sortant c'est comme ça que ça a été libellé. Mm-hmm. nous nous avons dit que ce n'est pas une question qu'on doit poser ici parce que si on doit poser la question de la candidature du président Macky Sall on doit aussi poser la candidature de, de Karim Wade on doit poser la candidature de tous les Sénégalais c'est un Sénégalais c'est un citoyen ñu d'accord ci ne et respecter les lois et règlements de ce pays formulation boobu ça a été une formulation consensuelle donc àgg nañ fu nga xam ni jàpp naa ni président Macky Sall par son génie politique parce que quand même c'est on on peut pas on peut pas euh, président Macky Sall dans son parcours et dans son histoire ce sera l'un des hommes rares hommes politiques qui n'aura jamais perdu d'élection au Sénégal mm-hmm. et il pose un dernier acte qui stabilise qui apaise Senghor n'a pas perdu d'élection aussi oh, hein. attendez xam nga temps Senghor nag bëgguma tooñ. <laughs> bëgguma tooñ bëgguma tooñ Senghor n'a pas perdu d'élection aussi hein. merci merci merci beaucoup naa ko la temps Senghor nag temps Senghor nag temps Senghor xam nga dañu doon voté. sans sans carte d'identité. waaw Senghor n'a pas perdu d'élection c'est factuel doon am isoloir amul donc bëgguma ñëwaat ci loolu. Ah, mais bi ba tam dañu doon bloqué opposant bi tam dañuy bloqué opposant. waaw ah, déglu ma ah, coy coy. Ah, ah, mais bii pas aussi dañu ah, gàttal ay opposants chaque jeune. il faut rester il faut rester interprète waa Fouta. dans tous les bureaux de vote dañuy am ay représentants am Sénat ñuy wote ay journalistes toog di joxe ay donc bu ñu wax loolu. non Fouta moom les élections ont été transparentes gars yi dañuy exagérer rek. gagné ngeen Dakar mais déglu ma gagné ngeen Dakar te kenn waxul. gagné ngeen Dakar te kenn waxul. gagné ngeen Ziguinchor te kenn waxul. non may mën a may mën a ma cooy cooy nous sommes tous des produits xam nga ñun ñëpp ñoo xeex pour arriver à ce niveau Assane Ba du ma bàyyi ñu ñu lii on s'est battu ici souvenez-vous des questions des ordonnances mm-hmm. souvenez-vous tant que ce pays là n'est pas e-, e-, ex nihilo am na fu mu jógee et des gens se sont pour arriver sa et ce pays là nous le partageons les points de vue moo tax ma ma d'accord ci loolu beneen bi et foofu laay jàpp ni ñun ñëpp war nañ ci tirer leçon foofu nag il faut pousser vos leaders à féliciter le président Macky Parce que c'est ça qui fait la beauté du jeu démocratique. Et vous c'est ça et vous poussez l'État à nous à nous donner déglu ma rek <laughs> xam ne sànq wax nga ni sànq wax nga ni nañ ci boole yërmande yëpp d'accord. ku nekk na loolu ñuy doxal rek war nañ ci dox yërmande. mais nañu consolider notre pays nañu nañu xam ni wujje politique du non du wax lu du wax bind ci nit lu nga xam ne amut. di wax ni kër diwa ngi fii am nga loolu man c'est c'est public. kër diwa nga fii ministre bi fii la dëkk bu ñu ngeen tojee ay këram ay milliards ngeen fay fekk man nañ ñoo toj suma kër waaw ma ne nañ waxante dëgg rek discours fi mës a kenn mosu ko fi dégg bi ngeen duggee ci politique bi foofu bi ngeen duggee ci politique bi bi ngeen nga ah, man xam nga man ah, eh. xam nga man dama la déglu man dama la déglu ma xam naa ne nag xam nga le dernier coup est toujours fatal moo tax sama mais dama bëgg na ah, déglu mais termine bi ngeen war a jouer si opposition dañ ko war a jouer mais et loolu foofu laa gën a kontaan ci discours du président de la république c'est-à-dire que ces violences là mais bu fekkee ni président waxu ci yow ce qui s'est passé le premier et le deux juin Fofana ça te fait pas mal la faculté de droit qu'on a saccagé la bibliothèque universitaire nous tous nous avons été à l'université nous avons mené des combats personne n'a jamais osé toucher la bibliothèque universitaire il est touché et Ça, aucun État du moon au monde ne l'acceptera. Vous en tirerez toutes les conséquences politiques et a dit man dama d'accord mooy enquête yi nañ ko dem jusqu'au bout. képp ku ci am responsabilité. ngay parti au pouvoir ngay parti d'opposition ngay force de défense et de sécurité ku ñu ci am responsabilité ci li xew ñu teg la lu yoon parce que sinon on n'aura pas donné un État un sens à